ya asalaamaaleykum wa rahmatullah mbokk ñu ñoo seetaan fii si Sahel TV ñu ngi nii fii nii nga xam ne mooy Banjul ñu ngi ko ooyee Tati Park te ñu ñëwoon fii nii fii food distribution bi nga xam ne moo xew Banjul fii nii kenn kenn réeréwul mbil ne affaire si dafa am yoo xam ne ñu ngi koo def fii nii muy Banjul fii nii muy affaire yi food bi nga xam ne moom la président joxe di onda nekk onda BCC ak som Covid 19 team bi nga xam ne ñoo ñoo waral maalo yi nii te ñu fi am suñu benn gis ñu ko ooyee Sala Bari Sala nuyu naa la. fay maalo bi daa xanaa kontaan nañ trop kontaan nañ maalo bi bari na kontaan nañ bu baax a baax government def nañ yëpp parce que koo teg ci biir kër ne ko toogal bul dem fenn war nga koo jox li moo lekka wax dëgg yàlla government bi amul dara lu ne war fay gannaaw kontaan. bu ndeme BCC dañ dem ega fofu non gaay dañuy wan ne ne government dañ joxe 2000 len joxe ñom ño wara jekal benen 3000 ba waaw because of ñu bari amu jottum seen keet ba tey. ñu bari gëtun ko ñu bari ngay complain loolu léegi daal lu ñoo am pour wax daal su fekkee ne government di lolu amut na gaay gi nak a jël seen matuwaay way gëna taxaw ci lolu na sax bari na am na ñoo xam ne amoon même stand gi ma dëkk fii ñu baree baree ngi nii ñoom jotuñ seen kër di seen démb tey te ñëpp leen duggoon seen kër yi house leen duggoon ñu dañ déggoon ne ne house to ku nekk fa war na am si dund gii man am na ñëpp Gambian seen ku nekk war a am ku nekk am nga door waa pour am li xam ne sa dëkk mu ko joxe war nga cee am waaw ñu yokk seen loxo jox ñëpp as far as na ñëpp leen ku ci nekk nañ a waaw mu ngi liggéey liggéey gu set wecc na ko Gambien si jàppale loolu leen am pour wax Gambien si Adama Barrow président gu baax la amul kenn ko gën mun noo am président bu ko gën waaw dama demoon liggéey mu tax mun ma jot suma sukur waaye teew naa léegi léegi laa del si ñu ne ma dañ ma oo ba soo na ma ne leen dama dem demoon liggéey dem télé si rang man dama moon si kër ñu jël ma am ñu jël am ñun jëlut waaye dem naa ba BCC bu ma demee ba BCC jël suma carte bi booy bi leeral na ma daf ma ne ma ñi amut ruugee ngee génn si ak yosam joxe ma ne ko kon loolu baax na waaye nag dëgg la lii nag moom yàgg na fi mm-hmm. waaw ndimbal la mm-hmm. am na nit yi dañ tane wante rek ñii dañoo am ñii amuñ mm-hmm. waaye ñun ñëpp benn lañ ku si am rek da ngaa dimbale sa morom ñëpp dañ dugg si kër yi laajte ku nekk sa nomba laaj la ñaata doom nga am nda yaa sa jëkkër a fi nekk nga wax di set waaw xam nga loolu duy ñàkk si nit nit di nga bugg a defar am ku bugg a yaaxa waaw waaye yàlla daal moo xam li gën waaye lii gën a lut kenn pour ñu ne dañoo yaaxa déedéet ñun ñëpp benn bi la nañ bokka ndey bokka bàyyi affaire yi moom yan na si yàlla def ñëwee si kër jël ma jël Ablaye war naa am Ablaye war naa am farfaroo waru fa am ñun ñëpp benn lañ waaye ñu ngi kontaan si gars yi nuñ taxawee fii di ñu jàppale askan bi dimbaleen askan bi dimbaleen bu jullit yi nekk si dëkk bi ak christian yi ñun ñëpp a fi am ñëpp benn kolto bi la christian bi muslim bi yëpp la waaye da dëgga soo ko seetloo ñu doon wóor di laajte ñoom ñoo def seen juumte rek waaye ay waru ñun ñepp a am te ku ñow fi war nga am mal war nga yobu sukur war nga yobu diwlin waye man suma ma yo yo du lu gën sax ci man parce que ñun ñaar ñëpp a am am waaw wax dëgg neex yàlla. is not transparent ko jëlé from the compound to compound di bina tur fogna suñ ko défé won nonu du dem am ben stress waye fu mu ne nii mu ngi am stress mu ngi ni ñaa ciow day and night ni 5 o'clock ñu ne close nañ da from seven bed, five million ñu ne la am time bi jot na which is not done understand so Gambia is Gambia so you never come ko so this is a just a charity things so at least suñ ko defoon plus transparency New ñëwee round to compound to compound at least new demay round tamit joxe ko like that the way ñu ko distribuer that's not the correct way like fee, si parc fee. laa mean, si jumaji fee. Why waaye lu ma from the Abdaye si si parc bi ñooñu da ngaa ñëw rek nga joxe them, without no stop. Central is not doing well ah, because of I don't know what's going on because of, I don't know whether it's the councillors or where them. I don't understood but the way they distributed is not done. man moom suma boppam i am not enough malo. but this one man dama ko maye I don't need it. Malawi Amnesty almost four bucks from the boat. I was working there. Why? Legi, su jile, ko jëlee dama ko maye du I will not eat it why should I eat it and some people need it so let them give it to those people who need it there is more poor people than us am na ñoo they have five bags in their home. they have three bags in their home. yeah yes. they have one. I have enough oil. I have a full bottle of oil, 20 liters. am na ñoo they have the pocket, they have their money. yeah that's true. they buy that and they keep it. that's true. to store it at their home. that's true. waaw ñooñu they don't need it. that's true man am na ñoo xam ne maa leen a gis fii man suma boppa yalawuma ko. dëgg la waaye waaye yow tey yaa ngi fi. waaw maa jël amu ko maye. ok waaw man dama ko maye nit ba pare. ok so kooku su taxawoon si sax dama ñëw rek jox ko ko live. dëgg waaw dëgg la because man niitu ma ko. dëgg la am na enough rice. dëgg la dëgg la whatever maa ngi aan. dëgg la waaye maa ko tane. dëgg la kooku mun nañ ko koo jox. dëgg la waaw man du ma seet ne man lu mun de naa ko mun a lekk non. waaye am na ñu ma xam ne maa leen maa ngi suma gannaaw. ne am yi suma kër. am na ñoo xam ne. ay ñu ko am. ko ñu ko niit. Wow! ñu ngi ñu ngi dem dañ half bag bu ñoo am less than two days ñu lifin ko mu jeex ñeneen ñi dañ koo jaay man gis naa ñoo xam ne dañ leen then dañ leen jox ba pare go koo jaay suba ana waaw yes and they sell. Yeah. Yes. Yeah. don't need it. So Dega. why just give it to those people? Dega. Dañ ko waxte dee. Because one thing more moo fa i mm-hmm. am not your xam ne ba ñoo dem round ah ñoom naka that boy Njai, I don't know. Then them round to compound to compound. Wow, house to house. House, house to, house. house. yeah. So you need them enter your name, mm -hmm. they your telephone number, mm -hmm. Do everything. Mm -hmm. Yo, I'm gonna key, mungi ange, I'm not rice. Yo, I'm gonna key, king ajel no ni turam, I'm not. Mutanga koko VIP na turam. niituloo niituko man su ma teeloon a xam ne dañ bindoon su ma tur du ma try loolu waaye bañ ma fi ne mu ne ok man ko may koo xam ne maa ko tane waaw Banjul Central buñ demee ba check amount of compound uh, amount of house people yu ko nii ñu enter ñooñu dañ dem joxe seen submit seen list to the government understand like example nga bina almost compounds understand house owner understand ah, those 200 house owners yooyu léegi ñu jox la loolu wada, i am almost banjo central ok let's say 500 bucks. ñu jox 400 bucks. so 400 bucks so Legi, mu fu mu ne Just now, legi mut mm. gis naa léegi koo xam ne mu ne ñoom dañ ñëw këram waaye moom ne ñoom ñi ñu bindul seen tur ñu ñëw fii ñu ceeb ma ne ko ñoo demal BCC soo demee BCC ñoom ñooy follow up doon te ñoo ñoom am nañ extra bag of rice boo xam ne is owned by the mayor So mom did not come una lemuna cover up for mm-hmm. But for the fee right now, I I bag of onions. What wow. wow. Wow. I bag of onions like this. Yeah. The big ones. Why na lolu fulan la akunya na come Wow, so ko hole din ko dis na mun ko camera. How man vou go kana come waaw ah, bu ko ñu ngi ko jël defuñ ko transparency de dañ ko pic fii inside fa lañ ko kaaw fa lañ ko denca ko bonka waaw si si lu ma gis mooy dañ ko bonka is different with the rice buñ nekka so boobu mu si biir store bi ñu bàyyi ko fa so xaw ma nag kanam moom loolu mhm. waaw whether is owned by the government or is owned by private because Hadim Kai moo nekk mhm. waaw foofu place Hadim Kai la mhm. so I don't understand whether Hadim Kai moo ko moom or ndax by government government ñu doon joxe ay ñoom tamit waaw ñoom dañ waroon a dem ñu ñoo supplier ñoom ñu taxaw each and every one waroon nga with the council or with the, the House of Parliament, this man, how to call it, Mohammed or whatever, or Tuma or this man, whatever. Oh, so you ñëpp dañu waroon a understand. because right now mm-hmm. soo ñëwee taxaw fii. suñu ne nii ay Mohammed ay eh, this one, this one. oh Mamour Mamour Yes. ne yes. yaa ngi daw responsible because su demee ba tool dañoo ne councilor bi xam na si dara. waruta demee noonu ak whatever government jox na la 500. ah les na ah. nga ñëw stand nga defend sa gars yi mm-hmm. nga ñëw complain ko mm-hmm. waaw soo ñëwee nga taxaw sa gars yi fi ku taxaw mm-hmm. am nga won ne ko ne lii government bi def lii lañ def lii lañ am so moo tax ñu defee ko nii understand waaw ñi tam ñi léegi da ngaa gis ne ay benn néeg ok four nit five nit ñu jox la fuul saaku maalo fuul saaku sukur fuul saaku lii understand which is not done am na ñoo xam ne yellowuñ comme nu ngaa joxee fu mu ne half half yi that's not done am na néeg yoo xam am nañ war nañoo ëppa loolu war nañoo ëppa half saaku am half bi understand jërëjëf borom waaw yàlla nañu yàlla defal jàmm man dama jël waaye dama dimbale gars tam pour ñu yóbbu seen maalo waaw jafe bu because da gis ku ñëw di complain si yow fekk xamul waaye dafa des a transpirer tamit parce que woot bu nekk mhm. am na fa ku fa responsable mooy di kansulo dëgg te moo xam woot bi dëgg moo xam ñu néew doole ak ñu am doole ak ñu yeloo maalo bi ak ñu ko yelowut mhm. foog naa ne foog naa ne ñooñu mhm. waroon nañ leen a gën a consider pour ñu def dis distribution dëgg dëgg te ko suñ ko solution la tam ñu jox leen majorité bi mu nekk si ñoom mais ñoom ñooy contrôle naka la ñu war a bi dina doon dimbale ñun dimbale gox yëpp because foo dem time bi ñu ngi complain man aw ma am na ñoo xam ne amuñ jabar am nañ am na ñoo xam ne ñu ngi ak seen famille amul understand nga am na ci lay am ne ban ya. ndongo yoo ya, xam ne ñu fi am na ya. te amul benn responsabilité am jabar am seen njaboot ak seen kër amuñ so comme lu ma desa transport yi loolu itam bokk na si understand nga hmm. waaye su nekkoon kansilo bi lañ ko joxoon kansilo bi dina xam ñana war a am ak ñana waruta am ak kana because tey koo xam ne mu ngi am loolu ak loolu soo ko demee jox ko ñaari saako ñetti saako kele nga jox ko xaaf koo xam su xëyee bokkuñ boobu doon ndam man dama ko against parce que am lu nekk rek maay noo ko dee yóbbu parce que yow tey si gox bi nga bokka dara ñëw na si gox bi boole nañ la si boole wuñ la si yow si gox bi nga bokka you have to participate mm-hmm. de nit yi nit nañ sa sa idea nit nañ sa movement because te am na yu bëri yu fi nekk ñun ñu xaw a coog sax fi nekk di yow gis na ma dama enu saako dama def lu nekk mhm. dama koo def mais dama bëgg a jàppale rek fay ñu ma ko def ñu ma ko ma neex rek koo def waaye su fekkoon ne ñoom ñu ngi fi dinañu dimbale si another way boo xam ne ñoom dinañ gën a yombal suñu liggéey sax mhm. restant na because tey nit dina ñëw coow fi coow fi coow fi joxuñ la cër waaye mhm. kan su la fi taxawee wax ak ñoom dinañ ko jox cër bi déglu ko liggéey bi yomba mm-hmm. understand te gox moom su dafa sa dara duggee fekk sa nit yi ñoo fa nekk yow you have to be there with them xam nga ñoom ñun nit yi dañuy office pour ñu taxawal ñu correct fekk boole wul leen si boole nañ leen si ñun ñu ngi si they have to be there as far as ñun ñu fa te ñun ñoo leen tax a nguur tegul leen fa ñun ñoo leen fa teg leen boolewut leen boolewuñ leen dañ war a bokkam as far as communauté bi jóg na dañ am pour jóg loolu laa jàppa doo bokka bi nu ma wax nu ma waxee bokka bi sa niti gox yi hmm. nga xam naka nga demee ak ñoom ba jël maalo bi yomba si ñoom xam nga ñi nga xam ne amuñ am tam noo doo because lu nekk is communication hmm. am na ñoo xam ne ñoom nañ amuñ waaye ñu ngay meeg soom efforts pour am ticket ak yooyu noonu xam nga yooyu yëpp mën nga leen see jàppale mooy li ma la waxoon rek. waaw si naa wax bi lañ nekk rek because am soo gisee loolu xapul comme mooy lu ma la wax rek kansulo si ñoo waroon a mun a toppal loolu gis nga nit ki lu fu mu fu mu xes ne moom moo fa nekk moo fa xam. mun loo faa xam ba gën fa gën ko faa xam ñoom ñoo xam seen woot ñoom ñoo xam seen doole yi woot ah, waaye kon su si dañ taw seen responsibility bro waaw comme comme xëj na tam ñoom tam dañ gis seen boppa ne boolewuñ leen si ñoom tax xara ñu téye seen boppa restat la hmm. ku nekk dafa am noo day xalaate hmm. bokkuloo boobu taxut gars yi ne bokk génne génne si si responsibility responsibility mënuñ koo daw hmm. because they already elected restat la daw nañ ko dawuñ ko dia dia. so pour fulfil sa sa sa sa sa sa lu la tax a jóg foog nga toppa li nga war a toppa understand ñi nga war a taxawu nga taxawu leen ñi nga war a dimbale nga dimbale leen boole bi moom dafa waroon hundred percent ne dañ si war a mën a boole mm-hmm. parce que loolu moo indi lii yëpp mm-hmm. waaye behind all tamit ñoom waroon nañu seet naka la dem def pour dimbale seen waa eh, community seen waa gox seet naka la ñoo def ñu woot ñu ngi ko yelloo ñu am ko mooy li ma la wax rek yow doo mën a am loolu loolu sa kër nit a ngi sa kër di fay luwaas sax yow mi yow mi ko yow mi ko yow mi nekk di fay ko luwaas bi sax mm-hmm. yow yaa ko ëppale maal waaw xew mooy comme euh, démb si wax wax naa ne lii nekkul ne dina mën a doy ñëpp parce que dëgg-dëgg nguur gi amul doole waaye man gis naa ne fu mu nekk nii suñ joxee fii li nga xam ne suñ joxee fii li nga xam ne moo fi nekkal da nga xam ne jeex nañ te yëf yi jeex na te ñu am fondin ñu ngi doon am sobla ñu ngi doon jox ñoom tamit mun nañoo tamit ci nga xam ne amul ñu joxe yooyu noonu tamit su ko defee si boobaat na mut nañ ko war defee def mu jaar yoon nga xam ne kenn du am lu mu complain waaw ñu def ni nga xam ne néeg bu nekk ak kenn nit moo fa am tamit su dee su dee nañ su dee noonu lañ ko defee loolu dina yomb waaw néeg bu nekk ak kenn am waaye buñ def comme benn néeg ñetti nit am fa coupon te si yeneen néeg yi kenn amu coupon xam nga boobu tamit fiyaawul waaw yooyu noonu tamit waruñ koo def nañ nekk su dee household bu nekk waaw famille bu nekk ñu am coupon famille bu nekk mu am coupon loolu moom dëgg la waaye maanaam gis nañ ne de problème bi yëpp problème bi ma wax ni yëpp Banjul Central waaye Banjul Central mu am problème bii ni nga xam problème yi Malo mu ngi nekk ak big problème boo xam ne am na ñoo xam ne ñu ne ñoom ñëw nañ seen kër yi nañ jël nañ seen néem si am na koo xam ne bu bu pandémique bi di am sax dafa toxu kombo ba pare kooku dafa am si Malo bi la loolu lu war la. ndax démb moom daanaka vol di manqué woon waaye dégg moom complet mhm. naa fi trop. Mhm. waaw naa fi seen naka mhm. waaye lu gis mooy Banjul Central fa mu am problème parce que Banjul Central moo ëpp nit Banjul North ak Banjul South. su suñuy séddaale tamit lu ëpp si lu ñoo séddaale tamit war naa nekk bi Banjul Central ndax mu mën a doy nit ñi tamit mhm. loolu mooy problème soo ko xoolee sax si voters list bi sa population bi fenn foofu moom moo ëpp Central am na 9000 électeurs Banjul South am na 7000 am na 7,000 fii am na 7,000 eh, fii am na 6,000 so da ngaa gis ne central saa yu ñu séddale dañoo di factoloolu mhm. waaw su dee ne thousand la ñu séddale mhm. six six hundred bi au oh, five hundred bi dafa war a ñëw baañu central yeneen two hundred yeneen five hundred ñu séddale ko south ak noonu mhm. loolu loolu nekk duñ duñu benn problème waaw mais la war a am famille bu ne nga xam ne su ko defee famille bu nekk dina mun a am waaw nit ñi seen bopp ah, ñoom ñoo war a doxal lu doxal lu jub nga xam ne dafa yomb coow du am waaw démb daal coow lu fi loon dégg yëpp mooy woon ne si lu ma observé mooy taxaw bu yàgg bi waaw parce que tam soo seetlu am na ñoo xam ne seen nombre yaa ngi sori bala ñu ñëw pour accès loolu am na ñoo xam ne ñu dem ba ëllëg ñu ñëwaat ndax loolu lay gën a yomb si ñoom parce que toog fi war a dem toog yi ndogu doo mën a te yaa ngi ay nombre 300 and something ak yooyu loolu dafa wér time ak yooyu noonu mm-hmm. so am si si si suba si. si suba si waaw soo ko seetloo démb fii nu mu meloon nomba bi ëpp na lii four times. Mm-hmm. si ay nit. Mm-hmm. four times démb. Mm-hmm. waaw nomba ëpp na four times bi. tey gis nga mi ngi gis ñu wàññeeku. dañu seet fii ba ngoon fii ba nañu ko ñu war am tamit nañu ko am. daal lu ko bëgg a rectifier duñ jëlaat ko ñu joxe waaw nañ seet joxe ba mu jeex ñi nga xam ne amuñ si dee ne stock baa ngi des ba léegi ñooñu jox leen coupon ñi nga xam ne amuñu woon ñun tamit ñoo jël kon loolu laa ko moom mooy lu war waaye su xasee joxe coupon moom du mun a reversé duñ a demaat jëlaat mhm. coupon bi man si lu ma si lu ma dégg mhm. si lu ma dégg dégg ba mhm. dama dégg ne kansula si waxuñ leen duñ yóbbu bagage si kansula coupon yi ñu ne jëfuñ ko continuer fii wala boolewuñ leen ci pour ñu def distribution wala ñu su ñoom ñu si bëri tamit daanaka gisaguma ku si participer daal. waaw ñu tamit ñu téye seen mm-hmm. dañ leen si génne tamit xëy na ñu meer tamit. Mm-hmm. waaye ah, tamit du leen bileem leen bileem tamit parce que lu leen waroon pour ñu def jël ko seen loxo jox ko mu def loolu war nañu su leen neexee tamit génn su leen neexee waaye man ku mel ni man. haru ñu wax ma ne kaay wala buñ dama gis ne sama nit ñaa ngi te sama nit ñaa ko ne loolu ñoo ne ko jox ma ñëw di ci participer pour gis ne buñ ci am benn coono te ñëpp nañ jot li ñu ñun tamit ñu mhm. ci daal léegi mënoon nañu def loolu def après ñu doo complain waaw waaw ah, loolu ah, tamit waaw tamit seen comité si wañu na a bàyyi tamit seen wër comité si ñu demee ba gis ne seen comité participer wax nañ ko ne non bul gis ne li ñu tamit comité si tamit wañu ñoo seen tamit dañ dañ man su ma xamee ne lii eh, maa ko moom wala dama si war a nekk su ñu ooyee ooyuma dama cee def ci loo xam ko war a def. fii nii wala protest bi lu ko waral moo nekk affaire yi food contribution bi nga xam ne government bi moo ko joxe. pour waa Banjul yi understand la. man maa ngi fa woon si taati paak bi fële ne leen. so man dem naa pour jël suma maalo understand la. waaye dem naa man jox nañ ma coupon understand nga so buñ ma joxee coupon bu ma demee foofu ma xool crown bi mm-hmm. bu ma xoolee crown bi gis ne li ma gis daal man setul suma xel understand la mm-hmm. te setul suma xol te mm-hmm. naxarul naa ko lool mm-hmm. because of système bi nu ko gaay jëlee nu mu doon demee daal man anyway neexuma parce que man dama ne woon nduuj ndaaj mu ngi si ndabax nduuj mu ngi si taxaw naa fa display fa complain fa ba fa gaay ba gaay dem kooli ay soldaar ini waat lañ foofu noonu te lu ko gën waral moo nekk ne ñoom dañ duggoon si kër nit ñi di sóobi understand la soo buñ duggee si kër nit ñi di sóobi amul kër boo xam n gaay bay nañ ko yëpp la gaay dugg house to house understand la mais dafa am paquet bi nga xamné ne ñew ñu ne lañ paquet bi fan la mo joggé ñu ne ma ñu ne ñu li mayo bi moko ko indi pour ndimbal mhm. understand nga mhm. ñu togaat i one week time two weeks time am ñeneen ñu ñëwaat di sóobi ñu ne yeen ñu won ngeen fi lutax ngeen ñëwaat fi ne no bi pour government bi la ñu ne understand nga so ñu tok ay fan rek ñu call ñu ay 3 days back lañ ñu call ne ñu waaw da ngeen wara a ñëw BCC jël ci seen coupon bi té président bi dafa am food xam nga package yi nga xam ne dañ ñu ko jox so moom lañ war a distribute understand nga mm-hmm. pour waa Banjul ñu ne leen ah mm-hmm. ok so man néegoo si ma dikkal mm-hmm. am ñu dem am ñoo xam ne dañ leen kool am ñoo xam ne kooluñ leen am ñoo xam ne dañ jël seen coupon yi hmm. laajte la na da nga xam diw sàngam soo ne waaw ñu jox la ko am ñoo xam ne kooluñ gaay am ñoo xam ne dem nañ te registré woon nañ leen ñu ne seen tur dafa los si système bi soo loolu naka la mun a possible man nag pour wax leen dëgga jël naa suma bos understand waaye man dama am pour faytal suma morom yi ni ma amee noonu la gaay war a amee because of man duñ ma registré jox ma suma ta am ndaxte ñu ne kooku daf dee support Adama Barrow soo dañ jël nit ñi bi yëpp it understand nga ñii am ñii amul te fii nii nag àndoon fee gaay ñëw def fi benn protest bu ndaw right now understand nga because of eh, li gaay jot a xayma ñi nga xam ne ñoo doon protest gaay dañ ovoon a bari wit da laaj numbers understand nga ñu ne ñoom dañ ñëw ñu sepp leen ne ñoom dañ war a xaar bi after korité ñu soog la ñaa jox seen package non non non su ko gaay défé rek xamal né amna lu ci gaay rax ba ci so baye xel ya ngay dégg kansula banjul si Sen boppa ñu né meyo bi bolé wut leen ci food contribution bi té kansula si So gisé ñu nekk ak kansul pour jappalé meyo bi am bi mu mëna dem banjul waye meyo bi daf leen ci gëné ak tol meyo bi député meyo bi ak ñi nga xamné ñom ñoy UDP supporters dal, ak UDP councillors foog na ñom ñoo nekk di def liggéey ak sen groupe gang boobu noonu understand so man nak ligay bi rafetlu wu te liggéey bi nu moo doxee rafetuwul te lii nii dañ ko joxe pour ñi nga xam ne dañ néew doole parce que soo bàyyee xel coronavirus bii nii nit ñi kenn liggéeyu kenn demut fen nit ñaa ngi strand nit ñi fu mu nekkat bisaab lañ nekk di dundee understand kenn liggéeyut kenn demut kenn ñu ngi koy yaaga expect because of lii suñ aleen gi la understand nga nguur gaa ko joxe so am nañ si 100 percent fight ko duñ koo geeda tey duñ koo geeda ëllëg dañ see dem bom jee complain yu ma jot a dégg si biir yi tubi franc ñu ngi si weeri koor te dama or understand nga man suma boppa ma ngi fa woon ñeenay dañ ñëw ne seen dikkandoor yi ñoom UDP lañ leen support am na ñi ne am na ñaari baagi maalo am na ñi nga xam am na ñaari baagi sukur understand nga so ma ne leen loolu naka la mun a possible ñu ne non because of xam nga ñun dañ doon aada euh, euh, mayo bi nga xam ne moo fi nekk understand nga mm-hmm. biir Banjul fii nii soo léegi neexewuñ comme que président bi dem na ba teg patiem soo ñun dañ am pour dem si président bi parce que ñun nguur lañ dee support understand nga so noonu la gars yi ñëwee dem supporti nguur so léegi ki nga xam ne moo fi nekk mu ne comme que ñii léegi dañ ma jaamu ma ne damaa jaamu gaay si lekka bi ni su fekkee ne tamit defut loolu noonu laa ko gisee ñu ko liggéeyal noonu lañ ko tànnee because of am na si ñoo xam ne ñi nga xam ne ñoo ñëwoon di def seen protest bu ndaw boobu noonu ñi si bëri ñoom dañ àndoon ak ñoom saf si ñoom ba bugg a dee soo léegi safatuñ si soo ñu ne ñii nii nag xaaral ñu woon lañ naka la fu mu nekk dinañ ñu ñëw raam ñaanal ñu su defee ñu mun la jox soo ñoom dañ bugg a fu mu nekk ñoo ñu ñëw ñaan lañ pour lan loo xam ne ñun ñoo ko moom lan moo war a tax ñu dem pour ñaan gaay wala di complain ñu ñoo waxal léegi dina lañ kool after juli after juli kan moo soxlaat lii kenn soxlaatut ko fu mu nekk nit ñi dañ yaagaa toog xaar nit ñi ñu ngi toogee xiif lii nit ñaa ko moom ñun teguñ fii xoolal laalaa waxal les si meyo bi pour yii nii understand nga ñun dañ bugg a Banjul dem kanam kan su yi dañ fi nekk pour jàppale ko pour liggéey bi dem kanam waaye doo tànne ne kii nga war a liggéeyal yooyu dañ ko passé fu mu nekk te ñun dañ taxaw pour corruption mu jeex suñ dëkk bii ni di Banjul wax ma la Gambia sax de waaye Banjul fii nii laalaa waxal ko fi bugg a indi corruption tribalism ñu naa yoola moom fu fu mu em rek mu ne bro mooy loolu de billahi walaay talaay ñun dañ mer fu mu nekk waaw man pour wax la dëgg man ku ma xool xam ma bu baax because of Banjul ku fi fis la understand nga ku ma xool xam ne dama yaaga liggéey si nguur understand nga yii yëpp dee demee dama ko over xam suma broda man ñaaka suma gis nga mbiri coupon yii nii te fu mu mun di xew muy pati muy kolobin muy pool pati muy anything muy réception suñu la joxee coupon ne la yow yaa euh, coupon yi lañ génne pour nit ñi almost su nekkee almost 20000 coupons wala 10000 coupons xamal ne almost 2000 ñu ngi si laaxa bi xam ne fake lañ te loolu noonu lan moo tax ma ne fake lañ coupon yi dañ koo jël te du am tur understand nga because of ñun ñu ngi taxaw ñu ngi jël suñ maalo yeeg sukkur yi maalo yaa ngi disappear te gisuñ fu moo jaar. soo ñooñu naka lañ mun a amee accès boobu noonu soo dama taxaw complain ko ñu attaque ma ne damaa fen loolu amut waaye man su gis-gis loolu dafa am te loolu noonu suñ demoon investigate ko taxaw foofu noonu cek ko ba cegaat ko lu mel noonu dañ ko faa gis because of man dama ne am na fake coupons yoo xam ne ñu ngi fa su fekkee ne dupliquetuñ ko leena laa believe because of diw sangam ak diw sangam ñu ne ñoom register nal ñañ te dem nañ jëli seen coupon yi comme nit ñi ñu ñëw jëli jee waaye joxuñ lañ seen bos understand nga soo joxuñ lañ seen jël seen bos bos di xam nga di ko ronu loolu moo fa nekka nañ wax nit ñi dëgga ñooñu ñi ngi amee seen coupons yi coupons yooyu leen jël di ronu affaire yi si xam nga di ko jël demee ko yoon yi gannaaw jël xam nga fu ma waxee ni joxee ko yoon yi ganaaw soo man loolu laa doon complain lan moo tax man manaa yow ñu registre ñu ndoor man suma tournée ka fa ñu ne yow sa tournée kuñ fa ay loolu dafa over garaaw suma broda soo man ma loolu amut te man ma ne teguñ ko si yoon lii dañ ko joxe pour nit ñi understand nga nañ dimbale nit yi lii nekkul mbiri politique lii pour dimbale nit ñi la understand nga dëkk baa ngi over métti suma broda so lii ñu ngi koo dimbalee nit ñi so nañ ko jox nit ñi moo gën ñu taana kii fii la nekka wala kii fii la bokka fu mu nekka ñun dëgga dëgga Gambian si mënu mënuñoo xamee waati xamee waatuñ suñ boppa understand nga nañ bàyyi toppante bi nañ di yërëmante understand nga loolu mooy yóbbu nguur te di wax dëgga te things yi dafa war di transparent because of soo déggee nguur ñu teg fa lu transparent moo tax ñu teg la fa suma broda ñun si lu jub rek lañ dee duga always te man ma ne dafa war a jub waaye affaire yi jubut because of suma broda man li ma gëm almost more than hundreds of people mënuñoo ñëw ne ñoom gisuñ seen tour si liste bi lan moo tax loolu su nekkee tamit nekkut 100 almost more than 25 witness naa ko because of ñu génn si pour protest uppa nañ almost 30 understand nga soo man ma ne loolu mënut a nekk ñooñu ñëpp mënuñoo toog gisuñ seen boppa si liste te ñooñu ñëpp ñu ngi ooyee ñoom seen boppa ne NPP lañ te yow leer na la ñuy NPP lañ waaye da nga leen bugg a naaj understand nga ñun expectuñ lii ñun luñu expect mo nekk dañu ñew awma yow affaire na nga def mang fi nga jox ma suma ma dem because of li ñun ñoko mom li ci la jóge because of man to be frank bala li di ñew ma ngee dunda understand nga way suñu alen la li nguur gi la pour ñep la ñep ko yeeloo amut ki amna ki amut ki néew doole because of time election su joté su fekkee ni man dama néew doole man nga jox ki dafa am joxuloko time election su joté ñep adé sani so bul wax ne ki li la ki li la ñep ko dal wa parce que dañ ne pour rewmi la pour Kansula si li ma amoon pour wax si ñoom moo nekk ne yow yaa ngi nekk Kansula dañ la élect select la dugal la biir Kansul pour nga représente sa woot understand nga woot bi yow yaa ko amee so li fa ñëw lii génn yëpp yow Kansula bi la understand nga yeah so Kansulo bi su demee bi xëjatul biir Kansul fi nga xam ne foofu la office am nekka ah loolu de doy na waar mais yow bi na liggéeyaa Kansulo sami ñoo ko fa nekkal. te ñoo ko support su buggee next election am mu baax na déggoo gaay bu mu seet ne kii parti bi la nekk kii parti bi la nekk na liggéey rek mu jub waaw ñun loolu rek lañ bugga waaw ñun kontaan nañ torop because of ñu amee lu mel ni lii nekk biir Banjul fu mu nekk léegi mm-hmm. suñ naxar yi yëpp dinañ ko génnee parce que ñun duñ ragal man am a real politicien suma broda dama si yaaga bu maa nekk xaleel ba léegi soo afta lu waay neex tamit waaye ñun xoolal ñun luy dëgg rek la ñoo te luy dëgg la wax kontaan nañ si yéen maalo bi dafa yiis trop maalo mu ngi nekk fii ba léegi soo ko xoolee sax donatul maalo lii léegi just like a hair bi da nga xool doo ko gis sa kër jotuñ si benn saako maalo pour benn kër it's too small definitely la nga maalo bi ni ngi ko sentoo léegi weeri ko dem na ba jee ñu si suñu maa ngi dégg sa ne yéen a saako maalo dañ ko yóbbu si yéen a kër yi di ko seetaay par pot maa ngi ko dégg waaw maa ngi ko dégg ko man mi maalo bi sax gisaguma ak suma bët dama ko wol ni si baye bi rek di ko romba gars yi baa ñu tam ñu ngi kaas ne maalo bi daf naa romba fiw te laal ñu si dara dafa cher man dama foog ne sax naxaate moo si nekk parce que amaan tof xaalis bu ñëwoon ne dañ ko dépense pour ñu di mën a dundee maalo bi loolu ñun gisuñ Because better Gambia. You know, I'm going to contain them, it's very small. very small because ñuy taw officer. sax yéen ko xool yéen bi tey gis ngeen ne maalo bi demagul fenn ñuy complain ne amul moo mun naa la wax ne maalo yi fu ñu dem bébé ñu ngi ko fa teg soo demee bu nu school ñu ngi ko fa teg tasaarewuñ ko kenn xamul kan leen kan ñoo xaar Right now, if you go all those places, they put rice. They are, the rice are still there. They don't distribute it because, you know, they bring a confusion. Whereby 4,000 people are, you just bring 1,000 bag of rice. How they can distribute that thing? It cannot be possible. My friend, let us look things. And you cannot take one bag of rice, give for one compound. How they can share another thing. Every company you go, there are different family, not one family. People are renting. Maybe I'm, I'm, i can be the owner of the compound. I have ten or five people who are renting in my home. Mm -hmm. So if you give me one bag of rice, I cannot sell those people. They should think got to do again. ci nguur di liggéey sax dama lay yërëm parce que du ma gis ne. di suñ ñun lu ñu expect si ñoom. di si dem kanam. to be connect billahi wallahi taala di suñ dem kanam. xam nga ni soo demee ba jaaxle. di buub loo loo waaw ñun jaaxle moo ñu dugal si lu ñu xamut because ñun nii óolootuñ sax nekk léegi nii because of xaalis bi ñu ko pasar pasaree ay bi yoon non because xaalis bu ñëw billaahi kër gu nekk war naa am maalo bu doy what we hear from the radio and what we see from papers my friend this large here yëpp a ngi ponde diw bi soo ko na di ko jàkkaarloo moom fu ngeen ma laaj du maa ngi jàkkaarloo moom du dégg ah everything is going I'm seeing the rise all is pollution raay bi man moo ko teg ba fii ak léegi mu ngi dawal si ñaari weer mënut a dem fenn dafa daw yaram am na ñoo xam ne ñu ngi koo yeeru mënuñu koo gis ba tey ñeneen tax na sax soppiñu bi ko soppi ñu ngi gàpp ne raaj bi dañoo expecté suñu ñëwee at least nañ koo ba seen boppa seen xaalis yooyu ñu dugal si leen ñu ngi demande ñu bëri dañoo ñëw taw si bay bi duñu dumaale foog ne dafa dem te fekk mu fa ba tey si school yi tasaarewuñ ko maalo bi leen de xam naa si